jërë ngeen jëf internet Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyoo dikk ak yéen ci xibaaru bés bi. L'information coronavirus la ñu koy dooree rek niki tey Sénégal amaat na ay cas yu positif gannaaw ba ñu testé lu toll ci 1005 92 yi ñoom ñoo positif 74 yi di ay cas contact 18 yi ñoom nekk ay cas communautaire fii di Géejawaay lañu amee ñaari cas Rufisque ñetti cas Mbaaw benn cas Diamaguène benn cas Liberté 6 benn cas Bambilor benn cas. Kundun benn cas Yarax benn cas Malika benn kaa Jamñaajo benn cas Kébémer benn cas Touba ñu am fa 4 euh, cas niki tey am nañu ñu faj rek ba ñu wér dellu ci seen i njaboot ñoom nag ñu ngi toll ci 106 patients waaye ca ga am nañu fa rek 23 yoo xamante ni bii ay cas yu graaw la ba ñooñee ñu ngi nekk en réanimation ba tey rek niki démb gis nañu ne nag ci guddi gi am na waa waaju ñàkkaat bakkanam rek ci feebaru coronavirus bi moom nag ay atam mu ngi tolloon ci 70 ans. bu ñu jugee ci coronavirus rek dañuy ñëw nag ci li nga xam ni xew na démb rek fee ca parcelle école 8 rek muy nekk Mansour Faye séddale ceeb boobee maanaam dund gi nga xam ne maye nañ ko pour ñi nga ñi nga xam ni euh, coronavirus bi tax na ba yu bari mënatuñu koo fajal seen bopp rek moom nag dund gi mu doon séddale démb rek dacee lax mbirum politique bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi ñoom ñu ngi wax ni rek moom waneeti na incompétence am maanaam ñàkk mën a moom Mansour Faye ndaxte mbir mi euh, bi ko njiitu réew mi di def daf ko doon def seen loxo jotul seen ginnaaw te coronavirus tax na mënatuñoo lijjanti lu bari waaye moom daf cee rax politique gu bari goo xam ne rek tax na démb population bi ñi nga xam ni ñoom ñoo mer doon ko yàq lu mel ni xeme ba laalaale ci njiitu réew mi rek ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ni kontaan nañu rek te jot nañoo jot ci dund boobee ñu doon séddale négligence médicale moo am fële ca hôpital Kër Massar soxna si di wuyoo ci turu Absa Wagué moom moo ñàkk bakkanam foofee ci hôpital ba bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi magam bu góor bi yëkkati nag mu ngi xam le ni rek soxna si euh, bi mu tëddee feebar ak léegi ëpp na at waaye lii di feebaru jabet ak cancer moo ko reyoon rek moom mi di euh, bin di sa wage magam bu góor bi di xamle ni rek gannaaw ñaari weer ba mu nekkee Tiwaawan ndax yoon yi ñu tëjoon bi ñu ko ibbee dimanche ca lëndi ba la daal di fajaru rek ñëw ngir xool uh, rakam ju jigéen ji ci li mu nekk bi mu ñëwee gis ko ak état de santé bi ni mu yokkee la ko daal di xëy ci mardi bi yóbbu uh, ca hôpital bu Kër Massar ba waaye moom muy xamle ni rek uh, négligé nañu ko bu baax a baax ndax ba mu yeggee ca hôpital ba médecin yi dañu ko doon daw comme kuy daw lu ñu xamul noonee nag ca ngoon ga kii dafa wàcc liggéey nekkatula mu ngi nooy dafa dem ci médecin bi rek ni ko na ko ko ñëw xoolal ndax ni mu mel moom xamu ko te jaaxal na ko torop médecin bi ni ko moom euh, du mën a ñëw xool ko ndax xamul lu ko dal te bi mu fi ñëwee léegi amul benn médecin bu fa ñëw kon moom du mën a ñëw ngir xool ko ci noonee la daal di xool xam ni magam ji nooyeetul rek mu ànd ak raqam ju góor euh, ja mu àndaloon ñu jàppoo ko rek ngir dugal ko euh, ci morgue bu hôpital boobee biñ ko ci dugalee rek ci la médecin yi ñëw ni dañu koy defal autopsie xool bi ñu paree ne euh, li ko rey bokk na ci coronavirus euh, ñoom ci lañ daal di demee bàyyi leen ak néew bi mu doon lu leen metti loolu ba ñaari fan xaw ma ñett lañ ci teg rek ñu woo leen ni leen nañu ñëw jël seen néew rek suulal ko seen bopp waaye ba tey rek magam bu góor bi di xamle ni néglisance boobu am ci hôpital bu Kër Massar bi bëri na fa loolu ndaxte du moom du bin du ab sawage rek lañ ko fa def waaye daal ñu ngi jooytu bu baax a baax di ñaan rek nguur gi ñu wax ak ñi nga xam ni ñoo di waa hôpital bi ni médecin yi bu ñu leen dee def noonu rek ñi ci ñàkk bakkan dina bari ndax loolu day metti ci xol loolu daw ku wéré di rek day yokk li kay metti di rakkam ju jigéen ji lii di coronavirus reyu ko um, ndax feebaram yàgg naag moom lu toll ci ay at mu ngi nekk ak lii di diabète ak cancer ndax biir bu doon neewi ñu def ay test rek mbir mi génnee ni cancer la waaye daal coronavirus bokkul ci li nga xam ne rek moo yóbbu bakkanu ab sa wage benn groupe jeune rek ñoo mobilisé wu rek fële ca Touba Kër Ñang ñoom naka taxaw ca buntu armeel ya ne waajoojee génn àdduna duñu ko fa suul bu ñu sukkandikoo rek ci kenn ki nga xam ni moo di sëtu ka sancoon dëkk bii di Kër Ñang moom nag mu ngi wuyoo ci turu Seydina Mouhamed Ñang moom mu ngi wax ne rek ñoom armeel yooyee nekkul armeel boo xam ni ñëpp lañ ciy suul waaye armeelu familial la maanaam képp la ñu fay suul bu waa ji génn àdduna dëgg la maamam fa lañ ko suul ndax wóllëre seen maam la woon seen maam ji sancoon dëkk ba waaye loolu taxul rek moom mii ñu war ka faa suul beneen bi ci topp moo di ne moom a nekkul woon ab murit ab ibaadu la woon lépp loo xamante ni dafa dëppoo woon ak yoonu murit ak mbiru sëñ Touba waa joojee mosu koo gëm mosu koo nangu maanaam dafa dëkkoon ci di leen dii ngat moo tax ñoom ñu taxaw temm ne armeel yooyee duñu fa suul waa ji ibaadu bi génn àdduna ñu ngi woy di ko séddale waaye fële ca gaaye rek bokk ci département bu Dagana ñoom ñu ngi xamle ni rek bu ñu naree séddale it la ñuy joxe du bari li ko waral nag moo di magasin ba nga xam ni fa lañ dencoon ndund mi ñu war a séddale la ay bandi ak ay woyu ñëw rek daal di koy daaj ji sàcc fa ceeb ju bari ak diwlin joo xamante ni daanaka lañu fa wacc rek tollul sax ci fukki butéel ñoom nag ñuy xamle ni rek mbir mi doy na waar lool ndax euh, bi ñu xëyee euh, gis magasin bi dajjee ko ubbeeku ñu dem di xool euh, gis ni dund bi yëpp sàcc nañu ko te xamuñu sax kan moo def ñaawteef gi lee loolee rek moo waral police ubbi enquête jëmale ko ci mbir mi rek ngir xam ku def ñaawteef googee bu ñu ci jugee rek dañuy dem ci rayaate gi nga xamante ni bari na jamono ji bokk na ci benn waay goo xam ni moom dañu ko doon jam ci biir ay paaka jam-jam yu bari ba noonee la ñàkk bakkanam ki doon def ñaawteef gi nag ñuy xam leen rek ba mu koy def ànduloon ak sago maanaam dafa màndi woon ba ne tat moo waraloon mu jël paaka bi di jam rek moom yaakaaroon ni sax ci foo la nekk jamono ji ñuy wax ak yéen nag moom ñu ngi ko placé en garde à vue fële ca brigade gendarmerie bu nekk ca janeiro. ba tey rek ci rayaate yi la ñu jëm nag benn waay moom dafa jam kii di papaam papaam nag ab baykat la woon rek nekk ca fële ca Molomp bokk ci département bu Ziguinchor waa ji nag li indi mu daal di jam papaam ray ko rek bokk na ci coowu famille boo xam ni amoon na xuloo bu tàng lool ci seen biirub famille moom noonee rek daal di jëlee paaka xalaatu ci lenn lu dul butti ko euh, papaam bi ko jur jam ko ay jam yu bari ba papa ji sedd guyu ci ay loxoom jamono nañ nañ ko en garde à vue rek te le 15 juin 2020 bi la ñu koy déféré rek ci euh, prison des corrections bu nekk ca Ziguinchor lab bi la ñu koy jeexalee fële ca géeju Mali bu nag mu mel ni xale yi tàmbali nañu fa waat rek te vacances yi sax commencé gul bu baax a baax niki démb ñaari xale yu góor ñoo fa daal di lab rek ñàkk seen bakkan kenn ki ay atam toll ci 18 euh, ans ki ci des ay atam toll ci 19 ans ñoom nag dañoo lab euh, ci plage Mali bu bu géejawaay bi Bougane jamono yi nga xam ne nag dañoo tere bépp rassemblement rawatina nag fële eh, ci eh, géeju géejawaay boobee nga xam ne eh, tere nañ fa képp ku fay ñëw ñoom ñaari xale yooyu fa la ñu nekkoon rek ba daal di lapp ñàkk seen bakkan ñuy xamle ni nag moom ñoom seen koor kenn gisagu ko maanaam nag xale yi ba ñu labee rek dañoo dem ñu ngi leen di wër nag ba tey rek ci biir ndox mi waaye ba tey tegaguñu loxo kooru xale yooyee di wax ni rek ba tey ne gën a jël ñu gën a garder lii di plage yi rekk ba xale yi bañ fay am accès rawatina jamono ji nga xamante ni dañoo tare dañoo tere bépp ndaje ci plage yi jërë ngeen jëf internet yi lii la ñu indi woon tey ci xibaaru bis bi di leen jox dig daje ëllëg incha allah ak yeneeni xibaar